comme ni ñu ko waxee Serigne tey jii rubrique de l'islam ñu fas yéene rek addu ci ak ki nga xam ne ni moom moo di imam Assane Seck. Mhm. invité woon imam Assane Seck ngir waxaat ci Isra wal Miraj mhm. sëñ Fallon koy wax léegi euh, yoonu murid tamit may ab jagleel muy gane euh, loolu lañ bëggoon waxtaane waaye xam naa ne temps bi du dana gàtt lool waaye waaye waaye ñu ñu ñu ko rek ñu ñu ci ziyaare waale te yi ndokkeel jullit yëpp rek euh, ni mu ko waxee dafa am lu ci xew ci lislaam muy euh, tukki boobu xam ne yonent bi sallallahu woon na ko jógee masjidu haram dem masjidu aqsa ba ca sidratul muntaha euh, yàlla di ko wax ci alquran ca bopp saaru isra ni ko kii waxee ni sëñ Fall waxee léegi ni imam ñu del siwaat ci isra wal mi'raj tabarakallah la nga ci mën a mën a mën a mën a baaxee masha Eh, isra wal ci kawteef yàlla defal jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa mm-hmm. ci jiitu la bokk kawteef yonent bi dafa am yu jëm ci lislaam bi comme alxuraan bi jommal ñépp waar ñëpp di tableau scientifique yi seen laboratoire yeeg ñëpp kawteefu yoo xam ne ci jëmmi yonent bi nag bi ci gën a fees mooy bi sëñ bi jotoon a junj te yàlla indi ci kéemaan boobu mu tombeek juddu kim doon waxaate ci ni ko waxee mu ne yonent bi daf ne daf lay rek mu ne cëpp hmm. macha allah comme ni ko waxee mooy hmm. jël bi nga xam ne eh, loolu tey eh, pour laltaay bi dama gis hmm. tey est-ce xam nga ne scientifique yi walla walla nit ñu bari alal yi hmm. euh, am nañ yoon woo xam ne nii euh, bu leen neexee dem ca dem ca dem ca weer wa hmm. mais nag pour nga dem ci weer wi il faut am fu ñu la jaarale hmm. euh, solo la yeneen yére yu bokk yi nga yi nga daan sol yeneen dàll yu bokk yi nga daan sol def la ay appareils yoo xam ne daanoo ko jëfandikoo waaye gis nga pour ñu waxtaanee isra wal mi'raj yonent bi alayhi wassalaam ni mu ñëwee ci saxiihul Buxaari li ko yàlla defal dama ne ah kon dañuy yéeg ci weeru lii rek la nee na balaa muy def isra wal mi'raj dafa toog ci benn jataay ay malaaka ne tëll ci kanam mm-hmm. euh, benn malaaka bi ne kan la ñu ne ko waajee la nee na ñi ñëw jël ko xotti dënnam bi xar ko am yuñ ci génne biñ pare am yuñ ci dugalaat ma seetaan documentaire nit ñi balaa ñuy dem ci weer wi fi ñu leen di jaarale ma ne kon de yonent bi alayhi salaam fii rek la ko malaa kay jaarale woon <laughs> kon ci même guddi gi ci la rañaane jóge ko euh, Makka dem fi nga xam ne mooy Jérusalem kooku nag fees na dell ak ay jàngat fees na dell ak ay kéemaan ba ci bokk na ci melokaanu yonent bi alayhi salaam bi ñu waxoon dans la Bible balaa yonent bi di ñëw am na ko ñuy wax Abdul Ahad Daawudi bind na benn téere ba mu tuddee Muhammad in the Bible te man bind naa benn téere sur le sujet du dialogue islamo ñi moo leen ko Égypte Abdul Ahad Daoudi Muhammad in the Bible mi ngi ciy wane exactement yàlla naka la waxee woon melokaanu yonent bi alayhi salaatu wassalaam gannaaw bu mu tuubee dugg ci lislaam nan la waxee woon rañaanam joge ko Makka jëm euh, Beytil Maqdis ak kéemaan yi ci nekk yu bare bare la bokk na ci Eh, dafa doon dund situation bu metti ñu sonal ko waa Makka eh, soutien am yi gënoon a mag muy sunu yaay Khadija radiallahu taala anha wa ardaha ak Abu Talib yàlla jëlaloon door leen ci benn at tartari gën a gën a gën gën a wàcc ci kawam mu ne ah Taïf de am naa fa ay nijaay te ma dem seeti leen ba mu demee ñooña gën koy ngal nag adduna bi yëpp lëndëm ci kanamam. di ko bundaxataal kon. boobu boobu woote na makka ñu koy bundaxataal. Mm. di bundaxataal ay saxaabaam. Mm. waaye yàlla def na yàlla tàggataloon ko ñaar ñu ko ci doon jàppale. Mm-hmm. <laughs> ñooñu àndandoor ci benn at yàlla jël leen. jël leen koy mm. wax amal xusni. waaye yàlla pour wane ne ah, wan ko ne ko bu la waa suuf. wane gannaaw mhm. bu la waa suuf becce ngalee a ah, waa asamaan mhm. yëgal nañ la moom ñoom ñi ngi lay eh, teg mhm. fépp foo xam ne sa place la fépp foo xam ne sa wàcce waay la kon eh, kon jàngat boobu mënees na ko jële ci eh, rañaanug yonent bi alayhi salaam situation ñaari bu demee ba tar surtout ci nitu yàlla alors foofu la ko xeetal yàlla di ñëwee mm-hmm. euh, bokk na ci liñ ci mën a jànge itam mm-hmm. euh, tey yonent bi donn gi nga xam ne donn na ko mbooleem jàngale yiñ doon jox yonent yi fi jiitu woon mm-hmm. ci naka Euh, bi mu demee baytul maqdis muy Jérusalem mhm. ni mu ñëwee ci saxiwul Buxaari yi yenent bu yàlla mu a yónnee mhm. dajee nga fa ak moom ñi taxaw ci gannaawam mu jiite leen mhm. loolu dama koy lié ak li ma gisoon ma ne la Abdul Ahad Daawudi bind na ko ci téere boobu Muhammad in the Bible melokaanu yonent bi mu ne bokk na ci Euh, fare kowam yonentum ci rañaanam yonentu yëpp ñu daje mu jiite seen gannaaw mu ne moom loolu bokk na ci melokaan yàlla waxaloon yonent bi alayhi salaam balaa muy ñëw mm-hmm. waaye beneen bi itam dafa mel ni yàlla mu ngi ñu doon junji la cause euh, palestinienne mm-hmm. bi nga xam ne tey ñu xam ko wala ñu bañ koy xam li ñuy wax la géopolitique mondiale mm-hmm. adduna bi li ko yëngal ak li fiy xew soo ko jàngatee nga xam li xew walla nga bañ koy xam foofu lay dellu ak ña fa nekk ak ña ko jiite ak ci seen plan yi ñu teg euh, yàlla doon wane rapport bi nga xam ne moom la cause palestinienne war a am ak képp koo xam ne jullit nga ndax yàlla bi muy rañaane yonent bi alayhi salaatu wasalaam mënoon na koy jël directement mu jóge Makka ko Makka rek def ko asamaan mm-hmm. Mm-hmm. waaye daf ko yóbbu Jérusalem pour ñu xam ban rapport la ñu am mm-hmm. ak ak Jérusalem googu ak place bi nga xam ne moom la war a occuper ci dundu jullit te noonu la doon mos mel danaa ci joxe benn euh, benn benn benn mbir bu gàtt Salaahu Diin al Ayubi bi Euh, bi nga xam ne moom moo ko libéré. Mhm. daf ñu jàngal. Mhm. jàngat boo xam ne ak ñu ko soxla. wallaay euh, xam nga euh, adduna mhm. réew da jox sur priorité maa ngi koy wax sànq coach loo xam ne enjeu réel jàng tey bu ñu ko joxee sur uh-huh. dana ñu yokk. wallaay liggéey tey bu ñu ko joxee sur priorité. Uh-huh. ñu yokk. valeur yi tey bu ko joxee sur uh-huh. dana ñu yokk. Salahuddin al Ayyubi nan la ñuy jàngalee loolu. bu njëkk croisés yi ñoo njëkkoon a dominer Jérusalem. moom loolu métti ko. mu ne nësër na jaayante na ak yàlla mm-hmm. ne kenn dootul gisate ay bëñam muy ree muy ree feeg libéré Mm-hmm. feeg libéré wul baytul baytul maqdis macha allah kooku li liñ ci war a jànge mm-hmm. uh-huh. mooy ut sur priorité uh-huh. yu am njëriñ uh-huh. mu jaral ñu mm-hmm. ñu jiital ko wallaay loolu ko defee loolu dina tax ñu àgg suñu objectif mais bu buñ ko deful rek bu ñu détourné suñu objectif dañuy jaar côté wallaay wallaay sekk ci bépp ak gàttal <laughs> macha allah loolu loolu loolu yëpp xam naa dinañ si ñëw parce que euh, ñoo waxee isra wal mi'raj ci temps bu gàtt mënu mënta nekk yaakaar naa li ñu ci war a wax yëpp bëri na importance bu baytil maqdis war nañ ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu demee ba ñëw indi na sërice sërice boobu war nañ ci wax ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne war nañ ci wax mhm. xam naa ne temps bi moo gàtt rek soxna Coro waaye dañ koy waajalaat beneen àjjuma pourquoi pas ñu indiwaat ko ci miroir de l'islam waxtaane waat al isra wal mi'raj mhm. soxna Coro nga jégal ma ma ma ziyaare waale euh, sëñ Abdoulahat Mbacke ibnu sëriñ Tahir Mbacke ibnu sëriñ Fallou di ko ziyaare bu baax ci kasu rajab gii uh-huh. ak sëriñ Fallou Sarr Jazaaka uh, ibnu sëriñ Cheikh Sarr ibnu Soxna Khady Mbacke uh-huh. bintu sëriñ Fallou uh-huh. uh, di jaale waale nag sama mbokk moo xam ni jóge na fi sama wayjur la di al oustaz Ahmed Dame Gueye ca Kaffrine di ko jaale mboole mbokk yi ak euh, njëriñ li nga xam ne amoon na ko ci àdduna xam naa danañu manqué lool euh, waaye ñu ngi koy jaalee mbokk yëpp rek mhm. euh, soxna Coro jërëjëf jërëjëf voilà léegi man dañ may may rek mhm. parce que dama ko kii woon voilà waaw damay souhaiter joyeux anniversaire sama caat Mm. dégg nga euh, muy euh, waaw voilà des petit déj maman ah, ah. Anta euh, Gomis joyeux anniversaire. Oh, ah. moom doo takk ñaareel ba caat <laughs> ah déet mais en tout cas daal mooy sama caat. pour l'instant mooy sama caat maa ngi koy souhaité parce que sama sama xarit la Anta Gomis. di koy souhaiter joyeux anniversaire. anniversaire maman Anta. résultat ah. <laughs> waaw moom kay jaajëf waay. ndeysaan <laughs> macha allah yàlla na ko yàlla def mag mu doon magum lislaam yàlla yar ko ca na mu gën a waree waaye tam li nga séntu ci moom ak lépp loo yaakaar ci moom yàlla na ko suñu borom def di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom la ñu doon partager plateau bi ba émission tàmbalee ba tey waaye itam di beral ngërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi ba mu yemb ku ci mel ni ñu nekkoon ci caméra euh, caméra yi mu euh, nekk euh, Kéba Thiam Babacar Lo waaye tam Pape Samba di gërëm bu baax a baax waa technique bi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw di ñu jàppale di ñu euh, tenir ba nga xam ne ñu mën a def ba mu yemb ku ci mel ni euh, Isaaxa Diagne waaye itam euh, ta Penda jàllu Guèye ñu ngi lay béral ngërëm bu baax a baax sonal nañ la sonal nañ la bu baax a baax di la rek sant di la gërëm di la wax ne rek foofee la di gërëm ngërëm tam ñi nga xam ne ni ñoom ñoo